wàllu listixaar ak wàllu noob waaye tamit am na tawat yu sonal askan wi bu ci mel ni hémorroïde ndoxum siti néew kattan ci góor ñi ma ko sañ wax loole moom xam-xam bi mu ci am doy na waar lool waaye tamit sëriñ bi dafa am jaaru yu doy waar yu mu am waaye tamit buuru kër gaa nga fa muy ñi nga xam ne dañoo néew kattan ci wàllu sëy waaye tamit am na cangat yu baax yoo xam ne am na ko moo xam nga nekk fii ci réew mi wala ci bitim réew ni ngay def pour jokkoo moom nag lu yomb da ngay woote ci numéro bi 77 341 citoyen 67 67 képp ku jokkoo ak moom yàlla na sa aajo faju laata ñuy door xibaar yi ñoo ngi wéy ba léegi di leen présenté application bi tudd SofaScore SofaScore nag lépp lu jëm ci tàggat yaram da ciy ñëw rawatina football kon daw leen ngeen téléchargé ko waaye nag ni ngay def ngir télécharger ko lu yomb la da ngay dem ci description bi lien application baa nga fa wala ci commentaire yi dinañu fa def lien bi soo ko jaaree foofe télécharger ko yaa ngi dimbali King Ouse et Ngary TV waaye tamit di nga ca jëlee ay xabaar yu wér te moo xam match yi daw en direct ak programme yi ñu dëgmal kon daw leen ngeen télécharger ko jaaree ko ci lien bi te boo ko téléchargé ba noppi li gën moo di nga bañ koo désinstallé maanaam nga bañ koo dindiwaat ci sa téléphone. ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu France bi ak Maroc tudd Ayoub Boadi di ans képp la am nag. li muy waaj a def nag bu ko defee dina miti lool ci équipe nationale bu France waaye loolu nag baax na ci ñoom li ko waral moo di kat gone gi football dafa am lool yaakaar ci moom ma nga ca Lille di doxal waaye l'équipe nee na soo moytuwul bala yàgg dina national bu Maroc dem fa doxal moom Ayoub Boadi nekk gone gu football am lool yaakaar ci moom te équipe nationale bu France yaakaaroon nañu ko di ko bàyyi xel su fekkee nag tànn na équipe nationale bu Maroc mbir mi dina mitti lool ci équipe nationale bu France loolee la xam xamle. ñuy jugee ci Ayoub Boadi ak i bëgg-bëggam dem ca waa Napoli bu Antonio Conte ñoom nag saison bii ñu nekk ñoo ngi amal jaloore di am ay ndam yu ama am solo saison bii ñu nekk ci Serie A tegle nañu juróomi match amuñu ca defet loolee nag gëj naa am ca Napoli ci atum 2023 Serie A nga tegale juróomi match di ko gagné loole gëj naa am lool li ko waral nag moo di liggéey bu am solo bi nga xam ne doomu Italie bi leen di tàggat tudd Antonio Conte mi ngi koy amal jamono jii juróomi match nga tegale ko ñàkkoo ca benn yépp nga gagné mu ngi gëj am ci atum 2023 foofee ca Napoli ñu jugee ci waa Napoli ak seeni jaloore dem ca waa Arsenal ñoom nag ki leen di tàgg tudd Mikel Arteta dëggal na ni doomu itali bi tudd Riccardo Calafiori dafa am blessure bu metti lool te dina toog ay semaines yu bari maanaam ayu bés yu bari doora mën a dugg ci terrain football xibaar boobu nag neexul ci waa Arsenal waaye tamit neexul ci équipe nationale bu itali ndax weer bi ñuy waaj a ginnaaw suba incha allah muy weeru novembre itali war na amal ñaari match war nañoo jàkkaarloo ak France war nañoo jàkkaarloo tamit ak Belgique ñaari match yooyee doomu itali bi di Calafiori du ci mën a bokk loole ki ko dëggal moo di Mikel Arteta ñu jugee ci Calafiori ak waa Arsenal ak seenu xabaar bu naqari dem ca Liga espagnol ba maanaam Liga Santander bi Liga boobee nag ñi ko ëmb mu di waa ligue bi officiellement envoyé nañu demande fédération bu Espagne ngir match bi war a dox ci diggante Valence ak Real de Madrid samedi incha allah ñu dàq match boobee ba yeneen jëmmi jamono li ko waral moo di foofee ca Espagne dafa am taw yu miti yu fa am rawatina ca Valence googee Espagne jamono ji inondation sonnal na leen am na ñu bari ñu ci ñàkk seen bakkan am na tamit ay kër yu bari yoo xam ne ndox mi nangu na ko loole tax na nag waa ligue bi maanaam ñi ëmb liga e sport ab demande fédération bi ne leen match boobee daal liggante gënal ñu ñun ñu ëmbul liga bi moo di ñu dàq ko ba jëmmi jamono demande bi nag dem na waaye officiellement dàqaguñu match bi mbir moomee dinañ leen ko toppal dara du leen ci ump incha allah ñu jugee ci match boobee war a dox ci diggante Valence ak Real de Madrid ak dàq gi waa ligue bi bëgg ñu dàq ko waaye Real de Madrid moom du ñu leen bàyyeegum match boobee nag su fekkee dàq nañu ko maanaam su fekkee toxal nañu ko ba yeneen jëmmi jamono Real de Madrid kon weekend bii ñu dëgmal du ñu football ab match ku leen namm nag gina xaar ba ñu yegg ci le 5 novembre ndax la 5 novembre bu ñu cee yeggee Real de Madrid war na jàkkaarloo ak AC Milan match boobee Ligue des champions la soxal Real de Madrid moo koy dalal ca Santiago Bernabéu su fekkee dàq nañu match bi war a dox ci diggante Valence ak Real de Madrid Real de Madrid dinañu dallu yegg ci la 5 novembre incha allah ñu jugee ci match boobu war a dox ci diggante Real de Madrid ak AC Milan jël doomu Allemagne bi tudd Antonio Rudiger moom nag dafa amoon blessure bu ndaw keroog ci classico bi bi Real de Madrid di dalal Barcelone ca Santiago Bernabéu blessure am boobee nag mi ngi yëg tan bu baax tey jii dooraat na entraînement yi moom Antonio Rudiger kon bu dara soppeekuwul ci diggante bi bu ñu yeggee ci la 5 novembre Real de Madrid di dalal AC Milan dina mën a bokk ca match boobee doxal moom Antonio Rudiger ñu jugee ci Antonio Rudiger ak xabaaram bu neex jël doomu Sénégal bi tudd Pape Matar Sarr moom nag tey jii këlëbam di Tottenham dañ doon jàkkaarloo ak Manchester City match boobee nag mi ngi soxaloon huitième de finale FA Cup